yitteem ludul ku ñëw mu faj aajaati rab bo mu wax sànq ci suñ mbokk soxna yi ndax su de eh, eh, eh, sàggan ba muy dugg wala mu ñu japp bu ñu doon wax ni 100 pour cent pour ça ñu mëna yem te ki am rab bu and ak mom xañ ko jëkkar su amé jëkkar ndax rab ba ma nga faal dafa parce que lolu faaw mu nekk bopp waa xam nga jigéen ñu bari li tax di leen dugg parce que euh, yi ñuy tere yëpp islam tere leen ko dañ koy def benn euh, tere ñu tere leen meesu tere leen bopp nen tere leen parfum di génn yooyu yëpp ñoom dañ koy def euh, da nga naan dégg sax mag ñi naan jigéen buy tëdd warut a parfum parce que boobaa day am faru rab waaye loolu sax li gën a wér daal mooy jigéen buy génn wërta parfum ndax islam fiire na jigéen ba fiire ko ci loolu te islam bu bu waxee rek yemul rek ci fi xel mi xel ni ki yem waaye xëy na am na leneen loo xam ne moo ngi ko gis lu dul loolu ndax parfum jigéen parfum bu génn maanaam maanaam euh, rab yi rab mën na ko bëgg dugg ko euh, wala tey euh, mu gis ay réglam daal di génne coton bi sànni ci mbalit bi loolu ñëpp xam nañ ne dina dafa bëgg deret bu ko defee eh, jëfandikoo bi ñu koy jëfandikoo eh, loolu mën na waral ñoom ñu mën a am maanaam ñu xemmem ko moom ba topp ko maanaam xemmem ko ba topp ko ndax dangay dégg sax ñuy wax ne eh, yére ki tey ay yéreem bu ko weeree ba guddi jot na ko weere bu xëyee weera ci ligne bi li ñuy bañ yooyu yëpp ndax jinne yi topp yére boobu waaye ñu ne nit ki bu watoo pare na jël karaw bi gas suul parce que tey am na ñoo xam ne bu ñu faj rab bu ñu bëggee mu génn ci kooku dem ci keneen dañuy jël karaw ku ñu xamul boole ko ak la ñuy lañuy la ñuy euh, dayu mbaam ak lañ ciy boole yëpp jox ko nit mu suuroo ko bu defee day dàq rab day dàq rab tàggatoo ci li ñu daan may comme bienfait ngir ñu mucc rab karaw. waaw loolu entre parenthèse rek mais nekkul waa nekkul loo xam ne. dañu indi kii bi yëpp daal ndax daf ci am loo xam ne ñu sax duñ ko bëgg di fajee nit. ndax tey nga faj nit lor keneen. loolu moom bu fa xam-xam yoo xam ne bu nit xamee tam. bañ koo jëfandikoo mooy gën jëfandikoo ko. ba àgg nag ci di ko wax nit ñu koy jëfandikoo ndax tey koo jël karawam bool ko ak nangam ak nangam ak nangam. jox ko rab jàpp mu suuroo ko léegi rab ba topp borom karaw gi kon lor nga ko. Mm-hmm. waaw loolu moo tax. ay jërë ngeen jëf saa su ne nii dañ koy ànd ak yéen ba léegi ñu seen numéro yu am solo yi ci seen jotaay bu am solo yi di Melakaar ji saa su ne rek dañ leen indil ñaari point ba ñett ngir ñu mën a leer ci yéen ñu mën a toppaat Maodo mooy suñu thème ci yeneen thème yi ñuy xaar yépp kon ñëw nañ ci feebar yi ñetti feebar yi caractéristique yi cat. rab dégg nga ak liggéey waaye ñëw nañu tamit ci jigéen ji nga xamante ni moo amul rab ba am jëkkër waaye ñëwuñ nañu tamit ci li li nga xamante ni moom moo gën a ci li nga day génnee rab ci nit ak sàggan gi jigéen ñi sàggan dañuy ñëw tey ci lan ngay baaxee nit ñi. ci loo xamante ni buñ ko defee dina tax parce que ñu ngi gis accident yi. waaw di gis dee yi di gis eh, maanaam. moo di borom. aati yitteem lu dul ku ñëw mu faj aajaati